julli mbokki tali bi ginnaaw bu ñu sant sunu borom di ko gërëm te di ko toroxlul tey seere ne moom rekk mooy buur nguuram gi bokkaaliwu ko kenn lu ko neex mu defe ko ni mu ko bëgge lu ko neexu am ñu ngi seere ne sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa mooy ndaw li mujj yónne ci mboolem mbindeef yépp mu dikk ngeen xattali jaamam yi teg leen ci ak teg leen ci yoonu àjjana sagal leen yoonu sawara ñu ngi julli ci moom ak sëlmal moo ki saxaabam ak i ñoñam ak waa kër yëpp di ñaan yàlla doolu xeewal ak barke ak ngërëm ak i leer ci sunu yaakaar Seyxul Xadiim radiyallahu taala anhu di ko ñaanal ak njabootam gépp di ñaan yàlla kii ko fi nekkal sunu borom bàyyi gi fi dolli wér ak i rakkam ak mboolem taalibe ba lim bëgg a liggéeyal maamam baax lépp mu def ko ni mu ko bëggee ca ñu ànd ko moom ñuy ñaanal mboolem kilifa yi diine yëpp yàlla dafa leen jàmm ak tawféex tey siir ñu ñaanal mboolem yépp yëpp di fàttaliku sunu mbokk yi nga xam ne ñu nekk Palestine ci weeru tat wi ci sàkku ci ñëpp ñaanal leen ndax adduhaa muqal xibaara jaamu yàlla gi gën a am soole bu doon bu doon mbindeef yuur ga mooy ñaan kon nag nañ ne ñaan xat-xat ya ñu toll amuñu jàmm te ña ci koor génne nañ seeni kër yàq seeni kër rayte lu bare bari lu fanweeri junni nit amatuñ lu ñu lekk amatuñ lu ñu naan amuñ lu ñu fajoo te àdduna sépp di leen seetaan ñu tooñ gu méttee métti waaye nag na leen ñaanal yàlla ñu yéene ci xat-xat yooyu ak jàmm ba delluwaat ci seen jàmm ndax jullit moom mbokkam mooy jullit saa bu sa mbokkum jullit nekkee ci xat-xat rek yow boo nekk jàmm itam dee leen bàyyi xel bu baax kon nag nañ leen di ñaanal ba saay saay see nekk ci seen biir ëpp leen doole ci di leen ko wan sunu booy mi nga xam ne moo am kàttan sa man lépp yàlla def mu wëlbati yi fii ban delluwaat seen jàmm ak salaam mbokk yi xutba tey bi ñu ngi koy jëme ci koor weer bu tedd wi ñu xam ne gan gu màgg la gan gu tedd la sunu yaakaar seexu xadim moo tax mu woyal ko yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal maradi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi yow mi ngeen ci gan nga xam ne yaa ñu indal mbégte indil ñu xéewal indil jàmm sëriñ bi nee na mi ngi koy wax ahlan wa salaam dalal ak jàmm xamal ne ko laa silta dayfan kariman shairan abadan yow de yaay gan gi nga xam ne doo dañ dinu siyaare at mu jot nga ñëw gane si waat bi te ku la bëgg berneel nag mu ngi lay berneel topp yàlla ak njub mukarraman bi xirat taaxaati wa sadati weeru koor gan la goo xam ne bu ku ko bëgg a ganalee da koy ganalee jaamu yàlla ganalee ko am njub kon na nan góorgóor bu baax ci weer wi sëñ bi tagaat ne ko muassaman inda rabbin la yow yaay ki nga xam ne sunu boroom bi la fonk màggal la waaye ñaragal yàlla ñépp dañ laa fonk màggal la waaye ñu jub ñépp dañ laa fonk màggal la yaay gan gi nga xam ne doo dañ di dikk di fas suñuy bàkkaar weeru koor bu dikkee bàkkaar yu ñu amoon mu ne suñu boroom da koy faj da koy fay da koy far waaye aajo joo amoon tam di ko ci ñaan suñu boroom day faj aajo ja waaye lin daa bañ di yëpp tam danga koy dàqal moo tax ma laa silta maa hayya aw saarin wa qaadiya aw taarin wa taari aqdaari min alxaladi waaye doo dañ ci ñu dàqal seytaane itam ba jëng ko ba seytaane du man ci ñoom dara wa saafin kula seytaan bi ma maahu wa mutxifan si sibil ihsaani bi shafali te doo dañ duñu may di may yu ay ay may ci ñi nga xam ne ñi nga rafetal weer bi képp koo xam yaa ngi rafetal weer bi suñ tubaa dara suñ suñu borom dalay jox ay may waaye day ay njàqare ak tiitaange yi newoon ci ñun tam weeru koor da koy dàq di ko génn di ko sànni ci àll ba wa musxiban kulla asarin nadiqu bihi fi dahri asiratan ya musxiban nakari wa sairan kulla amin ma nafuusu bihi min jooji mahdin karimin naafi seydi doo dañ diñuy dolli li ñuy texee jam at mu jot jëre ko ci sunu borom bi nga xam ne mooy jariñe di dolle kon weer wa gan gu màgg la nan ko fonk bu baax di ko waajal ci ay jaamu yàlla di fonk nii ngi di dem ci jàkka yi di ci julli waxtu juróom di dem ci guddi ci naafile yi di jàng Alxuraan di tudd yàlla di istixaar loolu mooy weeru koor weer la woo xam ne njëlbeen ngisu yonent bi nee na la digg bi ak njëggal la mujj gi goreel ci sawara la Yonent bi sallallaahu alayhi wax ne képp koo xam ne woor nga weer wi ba noppi taxawee ko naafila te def ko imaanan ci ihtisaaban nga ngir gëm yàlla rek ak sàkku yool xufira lahu maa taqaddama min al-awsaari boo ko defee boo ko waree ni nga ko waree ànd ci naafila yi bàkkaar yi nga amoon yëpp suñu boroom dala koy jéggal weer la woo xam ne képp koo xam ne def nga ci la sa naafila boobu day taxawee ak taxawaay julli farata waaye ku ci def julli farata julli farata day amee taxawaayu juróom-ñaar fukki julli farata yeneen kon lu am solo la weeru koor mooy weer yoo xam ne guddi gu jot juróom benn téeméer sunu borom dañ leen gore juróom benn téeméeri junni guddi gu jot sunu borom dañ leen gore ci sawara juróom benn téeméeri junni nit ñu waroon dem sawara bu weeru teroo ba keroog muy jeex guddi gu jot suñu borom dana ci goreel juróom benn téeméeri junni te bu demee ba ca guddi gu mujj ga lu toll ne liñ ñu wees woon lépp nag lay goreelaat ci sawara wa fi aaxiri laylatin yaxtaqu bi xadri ma mada juróom benn téeméeri junni yooyu lay def bët bi set ba eggee ca mujj mu boole lépp nag goreelaat lu toll noonu kon weeru am solo la wax ne dana tax ñu bari mucc ci sawara guddi gu jot ci weeru koor daa am malaaka yoo xam ne dañuy wax xalmin min daaxin fa ujibuhu xal min taibin fa amhu anhul awsaar ndax amut kuy bëgg dara di ko ñaan ba ma defal ko ko ba sunu borom nangu ko ñaan googee ndax amut ko ay ku tuubkat ba sunu borom jéggal ko ay bàkkaaram kon guddi gu jot am nay malaaka yuy taxaw di wax naan ñaan leen seen borom mu may leen tuub leen mu jéggal leen seen bàkkaar yoon yàlla wax na ci xaddisu xus yi ne jëfi doomu aadama yépp moo ko moom lul koor koor moom yàlla nee na fa innahu lii koor moom yàlla nee na mooy borom julli yi def ak joxe asakaak aj ñoo ko moom waaye koor nag yàlla nee na moom moo ko moom wax ana aj si bii donte mooy fay yépp mooy fay yépp waaye moom koor la moole bopp bi ci nee na mooy fayal boppam koor ndax yi yi ngay def yëpp mën nga koo def ngir ngi sal ndax mën ngay ñëw ci jàkka ji nit ñi xam ne yaa ngi julli mën ngay aj màkka ñu xam ne yaa ngi aj mën ngay joxe asaka noonu waaye koor nag mooy li nga xam ne moom yàlla képp moo mën a xam ba xam war nga ndax moom boo neexee dugg sam nekk naan lekk ànd nit ñi kon yàlla rek moo mën a xam nit war naa moo tax koor moom mbirum suñu borom la yonte boo xam ne asaw mu junna weer koor ab pakk la moo xam ne dalaa war a aar ci ba doo def loo wërta def moo tax mu ne bu fekkee woor ngi kenn wooree ci yéen bu mu nagootee fox bu mu soow bëgguñu ngay woor di am di bari mpox walla nga nekk ci mpox wala ngay bari wax waaye bu la nit ŋàññee sax ci weeru koor wala nit bëgg laa dóor baa mu bëgg gëñ laa bëgg laa gaañ fal yaqul inni saa'imun nee ko man damaa woor waaye bu ko fekk ca loola ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man lam yada xawla suur wal xamala bi fa laysa lillaahi aaja fii an yadaha taxaamu wa saraba képp koo xam ne doo bàyyi ay neen waxi caaxaan ak jëf ay caaxaan ci weeru koor sunu sunu borom nee na soxlawut sa ñàkk lekk ak sa ñàkk a naan fekkee boo waree tu yaa ngi werantee soow rek ay wax lu farata ak di jëf sunu sunu borom ne ne amul soxla ci sa ñàkk lekk ak sa ñàkk naan googee yonent bi salaasa wax na ne yàlla jox na aw xeetam ci yor ramadaan juróom ne mosu jox ko benn yonent juróom yoo xam ne ci weeru kor benn yonent jox ko saw xeet benn ba mooy guddi gi njëkk ci weeru koor sunu borom day xool jaamam yi nga xam yi nar jullit yi war sunu borom leen xool ci bëtam te sunu borom kum xool du la du la bëgg a def mukk kon loolu mooy benn bi kon ku bisu ko weeru koor sunu borom dana xoor ñuy war ñëpp te kumu xool du la bëgg a def ñaareel ba boo waree ba ngoon coofte gi nekk sa gëriñ nga xam ne day am xet sunu borom ne loola moo ko daqal koñ ba gën a neex mooy ñaareel ba ñetteel ba mooy guddi gu jot malaaka yi dañuy jéggulul ñuy woor guddeeg bëccëg tastaxfir lahum kulla yawmin wa layla malaaka yi day tax yëpp duñu jégalu suñu borom ñeenteel ba suñu borom day digal àjjana ne ko waajal ca sañse te sañseel ma sama jaam yii ndax kat ñoom ñi ngi ñi ngi wajan bëgg a noppalu ci coono yi àdduna ñëw fii sama kër gi muy àjjana ak sama teraange ji may ne war a taale kon nag waajal leen kon boo bi suñ borom day digal àjjane mu waaj parapare ñiy woor seeni dal juróomeel ba mooy bu guddi gi mujj ci weeru koor suñu borom day jéggal bàkkaar yépp ñu doon woor ba mu waxee lu am am ko walaaj ne ko ndax guddi googu mooy laytu xadar mu ne ko déedéet xanaa gisoo ne kuy liggéey ci barab ba liggéey ba noppi dañ ko war a fay lam lu liggéeye loo lool rek moom la mooy itam ku woor ba woor wa jeex dan laa war a fay li nga doon koor te loola mooy ak njéggal say bakkaar kon juróom yooyu koor rek moo ko am yonte bi rek la ko la ko yàlla may kon nag nan góor lu baax ci sellal suñuy jëf ci weer yi nan góor lu baax ci laabal suñuy xol ak mbañeel ak iñaan ak rëy ak xujbu mooy yëg li ngay jëf ak naafeq yooyu yëpp ñu génne ko ci suñuy xol waaye ñu fexe ba bàyyi ci bàyyi jëw bàyyi rambaaj bàyyi lekk riba bàyyi njaaloo bàyyi ay neen bàyyi xuloo ak warante lépp ci weeru koor wi ñuy nooyal suñuy kaddu di wax wax ju neex bañ a ñagasal ak kaddu bañ gëdd kenn waaye ñuy fexe bay lele bu baax a baax di togg ay ndem di ko joxe di teral fuqaraa masaakin yi loo man di di dimbali dinañ ko dimbali jamono yëpp la baax waaye weeru koor bi la rawati nag di dimbali ñu ñàkk ñi ubbil seen kër yi ñu xiif ñi bu ndogu jotee ñu ñëw di bokk ndogoo si si ci yéen waaye ñu ñàkk itam nga leen dimbali ban am lu boo ne mënee dimbali ban am lu ndogoo nga leen koy demal loolu lépp du am solo yi say jegeñaale say bokk nga leen di taxaw nga leen dimbale di leen jokk ndax kuy jokk say bokk ak di leen dimbale suma borom dalay jokk ñu fexe di ci def lu ba lu baax lu lu baree bare lu rafet waaye fexe ba di ci teet lu ñaaw ndax weeru koo yi xam ne boo ci defee baax dan koy ful noonu la tam boo ci defee safaan ba noonu lañ koy fule nan ci bari lool di wax laa ilaha illallah ak di bari lool istixfaar di jégalu sunu borom nan ci bari di ñaan sunu borom dugg ajjana waaye nan ci bari di muslu sunu sawar ci na ñuy fexe bay ñoŋal sunu koor ba du yàqu lépp lu yàqu koor ñu koy moytu bu baax a baax a am na. gaa yu baax yi wax na ne koor doonul bàyyi lekk kepp waaye koor dangay ngay woo wooral cër yi ban du def bakkaar sa loxo du ko du laal lu lu bakkaar sa lamiñ du ko wax sa bët du ko gis sa nopp du ko dégg sa tànk du ko dox sa biir doo ci dugal lu araam loolu bu ko defee nga sa sa nga téye soo lamiñ ba doo ci wax ay caaxaan damm sa bët ba doo ci gis lu araam sa tenq nga téye ko ba doo ci jàpp loo xam ne lu dëgënul la say tànk fexe ba doo ci dox lu araam kon yooyu yëpp dañ koy war a fonk ci koor gi koor nag li daa am lu koy yàq liy tax koor dog boo lekkee baa nga naan moo xam yaa ko tey moo xam da ngaa juum moo xam da nga ko fàtte ba def ko koor googu yàqu na moom waaye da koy wéyal nag fekkee da juum ba fàtte ko continuer woor waaye da ngay fay bis boobee fekkee da lekk wala nga naan ca tey ko na moom da nga ciy boole kafaara nga fay ko nag kafaara lépp loo xam ne dugg na ci sa biir ba nga yëg ne egg nag ci baax doonte lu amul njariñ la doonte aw la woo xam ne si waaye wóor na ne jàll na xamal ne toog ci yow doonte ba amul la njariñ waaye dugg na ci biir ba egg mel ne aw aw doj wala wala bant boo xam ne ba jàll na ba dugg sa biir boo ko defee xamal ne koor googu yàqu na wala nga nga bandamti ko dara sara saraandi ko ndox ba mu egg ba wóor na loolu lépp boo ko defee xamal ne koor gay dog wàccoo ci biiru koor ca tay ko sa koor yàqu na boo wàccoo ci téye ko nag waaye waaye dara delluwut comme koor gu yàq mu la wóoree na wàcc mi daa ñëw far force waaye dara delluwatu kooku moom sa koor du yàqu waaye boo ko tayee nag moom looju ko ba ñëw boo ko xamal ne sa yàq sa sa sa sa koor yàqu na ni ki noonu nit jigéen bu gisee mbërëg ba baax bu ko gisee kooram bu ko gisee ci biir bitig bi koor ga yàqu na bu ko gisee ginnaaw fajar sam koor ga yàqu na niki noonu góor bu génnee ci awraam bu ci génnee mën yu génnee ci sabab boo xam ne moo ko sababu ngay ngay jonjoog sa soxna wala yeneen jigéen di jonjoog moom ba am lu génn ci yow booba sa koor yàqu na te dangay war a fay fekkee dafa génn ci nag ay feebar la rek waaye sabablu sabablu woo ko kooku moom du yàqu koor feebar boo xam ne daa am lu génn ci rek waaye du bànneex waaye fekkee bànneex fa génn rek kooku day yàqu li ñuy wax mas yu itam mas yu bànneex bu daw mu koy génne moom itam bu fekkee dangaa ngaa da génn ci yow te fekkee yaa doon xalaat am looy xalaat ba mu génn baa ngay xool dara ba mu génn moom itam kooku yàqu na te da war a fay te da ngay kafaara ni ki noonu boo jëfandikoo dara jàpp ne jant sona mu lëndam nga dog ginnaaw ba nga xam ne jant sóot kooku yàqu na da ngay war a da ngay fay bis boobu nekk noonu booy xëdd nga jàppoon ne fajar jotagut nga lekk far dégg ñuy ba nga noppee dégg ñuy fekk nopp nan ba noppi booba itam koor googu yàqu na waaye du teer da ngay jàpp ba ngoon nga fay bis booba koo woor bu neex la nga yéene dog sa xol ne koor gi man bàyyi naa wóoratuma sa koor googu yàqu na donte lekkoo naanoo waaye doggu dogu nga sa xol ne bàyyi nga koor gi ndax yéene dafa bokk ci ponk yi nga xam ne ponk koor la saa boo ko tiiree rek boo booloo sa bo soxna itam ci koor koor ga yàqu na te da def kafaara kafaara nag boo ko déggee mooy nga goreel miskin nga goreel ab jaam sama miskin nga goreel ab jaam ab nga goreel ko wala nga woor ñaari weer yu toftaloo yoo xam ne bu sax da ngeen koy tagale waaye boo ko daggee sax da ngay commencé waat wala nga leere juróom benn fukki miskin kon dog koor ca tey ko lii la ciy war da ngay fay ba noppi nag jaam moom amatul waaye waaye kon da ngay ñaari weer yoo xam ne nga leera juróom benn juróom benn miskin lépp loo lépp loo xam ne jaar na sa sa guli gi baa mu jaar sa bët tuufaay wala sa nopp bi loo de sotti sa nopp bi wala mu jaar sa bakkan bi ba ca wóor na la egg na romb na guli gi loolu yàq na sa koor boo tuuxoo ci bëccëg koor baa nga def si dara su nopp yi ba mu dugg baa nga saraxandiku ko ba mu egg ca mu romb bële yi xamal ne koor googu yàq na jigéen bu ëmbee te ragal lor ëmb ba kooku sañ naa dog moom waaye bu duggee kooku moom du lenn day fay day fi day fay bis ba rek kuy nàmpal noonu noonu tam boo day nàmpal te ragal ne boo wooree sam sow dana manqué moom itam ca sado wala loolu mu amul Sénégal sax nga xam dañ daa xëy ko la nàmpalal waaye bu la wóoree ne boo wooree sa doom dana ca loru moom it mën ngaa bu noppee da nga fay bu defee nàmpal te dana leer itam mag moo xam ne wóor na ak amul kàttanu koor moom itam wóor wóoratu ko waaye sañ na bu saa bët bi set mu lele lele mudd jox nit lu lu ko mën a dundal rek ci bis bi waaye bu woor wéritoo jarul kenn di forcé mag moo xam ne da ngaa màggat wala da ngaa wérati wérati koo xam ne si boo wooree wérati bi dana yokku wala dana yéex a wër bu boobaa da ngay bañ a woor cay lene ndax yàlla wax ne taxam laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha sunu boom tegul kenn loo mënut kon nag koor nan koy waajal baax te fonk ko bu baax di ci góorgóorlu lu mën lépp te képp koo xam ne borub koo war na la nga di ko fay balaa delsi ndax boo ko yéexee fay ba mu delsi rek moom da ngay fay ba noppi leere bis bis bi bis bu ne kon na nañuy góorgóorlu ci taxaw ci bis bi gone nag moom gone gu ndaw wóor wëru ko fiig mësoorut jigéen itam fiig gis bu baax wëru ko ak sapp na nag ba xëyee dëgër mu koy jéem ndànk-ndànk nag allahuma inna nasaluka an tuxisa al islaama wa an tuhliya saal almuslimina wa tutawijahum bi taaji nasri wa safari wal amal wa an tarsaxna risqan xalaalan tayiban allahuma waffiqna li taatika wa xidmatika wa ma tuhibuhu wa tardaahu allahuma afir lil muminina wal muminat wal muslimin wal muslimat al ahyaa minhum wal amwaat innaka samihun qaribun mujibu daawaat allahuma rabba ramadan sallim lana ramadan wa sallimna li ramadan wa sallimhu minna wa sallimna minhu waj'alhu mutaqabbalan amin ya rabbal alamin